salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, maa ngi nuyoo bu baax di jaar di ñaanal sëñ Mouhamadou Mountakha xalifa général des mourides yàlla yàggal ko fi yàlla yàggal ko fi yàlla wéral ko mu ñaanal sëriñ Amdi Fall di xalifa général Baye Fall tamit yàlla yàggal ko fi wëral ko ak mboolem nag euh, mbokk yi ak taalibe yëpp rek euh, lu ma def nag bi dee boo xam ni xam naa day lu ma dab rek lu xaw a kii la euh, maanaam mooy xew-xew yoo xam ni xewoon na foofu ci corniche bi Touba te mu tukkee ci ndigal li nga xam ni sëriñ Mouhamadou Mountakha da koy joxoon sëriñ Amdi mu yaatal ko ci ñun bokkal Cheikh Ibra ngir ñu euh, euh, saytu waruma li nga xam ni moo yellu ci dëkk bi ba tuddaloon ca boppam sax euh, politique tuddal ci bopp politique bi te loolu boo ko seetee moo ci moo ci mujj xëy na dañoo dem ba jëmi jamono ñu àggale politique bi bari na lu ñuy ñaawlu ci warmay dëkk bi loo xam ni ca politique boobee la jógee mu tuddal ko boppam waaye tuddul woon loola rek ndax yeneen ya eh, ndigal jaaroon na fi yoo xam ne sëñ Abdul Ahad waxal ko yaakaar naa ñooñu ñëpp dégg nañ ko te worma moom ci dëkk bu mel ni Touba eh, ku ne xam na la war a doon war naa doon ci jigéen ñi sol col gu yiw te jot war naa doon ci eh, góor ñi ba tey te saalika tam war naa doon nag surtout nag surtout nag li ëpp solo mooy Euh, doxalin wi ci euh, yeneen anam yu bare bari euh, yoo xam ni moom it lim nañ ko ca tere ya waaw kon nag Baye Fall yi li ñu doon ci loolu rek lay ne moom li ca lañ ne dama yaakaar naa ku dem bay war a dëkk Touba condition bi wala charte boo xam ne da nga koo signé maanaam da nga koo signé muy signature tacite boo xam ni xëy na signé wuñ la ko waaye daa war a bokk ci sa ci sa ci sa euh, devoir mooy li sëñ bi bëgg ci Tuubaa nga nekk ca la mu fay tere nga ba nga fay digle nga def ko loolu bokk suro ndax ba nga fay ñëw kër gi nga dëkk kenn jaayu la ko ku la ko mën a jaayit kon ko ko jaay jaayuñu ko kookee ethnochique ba ca cosaan la ndax sëñ bi jaayul kër kan waaw ko jaayit dañoo may nit ñu jaay la te dëkk bii ba ñu koy def titre foncier booba mën naa ni kenn dëkk gu te booba la ko waraloon mooy eh, xam ni ña ngi fay def loo xam ni boo ko moomut ëllëg si biir nit mën naa ñëw teg ci loxo ndax booba xam ne ku ne xam ne ni boor yeeg pël yeeg xeet yu mel noonu àll àll yi daanaka ñoo ko moomoon wala bari leewoon nañ ca bu fekkoon ne defuñu ko nag def lu mel noonu nit mën naa ñëw ay saay saay jàppale ko. ñu ñëw Tuubaa ne fii suuf su maamam la woon moo fi nekkoon di moo fi nekkoon laa moo tax sëriñ bi ñu mu fi bàyyi am intelligence ak matuk defar lu ko titre foncier ba mu nekk seen propriété titre foncier nag ci benn état du caagee ni waxuñu ni mooy licence u loo neex nga def ci kër ga waxee su ko waaye waaye kër ga moom kenn du ko def loo neexut bu dëkk ca kër ga bu deful loo bu defee loo neexut dañuy daal di am sañ-sañ jëlee ko kon nag ci cadre boobu la Serigne Mountakha jëlee euh, loolu dénk ko bàyyi fal yi ginnaaw bu ko yeneen organisme yore waaw bu demee nii bu suñu ablaat dee tere bu njëkk a tere suñu moo sampoon ay nit yoo xam ñu ci bari mën naa laa limal ñan la tere ko ba mu fi jógee mu am diir boo xam ni xëy na liggéey bi xawoon naa am ralenti waaye bi ñu ko euh, reprendre ñu jaaree ci safinatul amaan euh, bu sëriñ Mor Lo Ngaabu jaaraat ci sëriñ Xamsatu Mbàkke bu sëriñ Abdul Ahad ci Xudaamul Xadim loolu lépp la ko taxoon a jóg mooy loolu ngir ñu wekk li xam ne moom la sëriñ bi bëgg ci Tuubaa war may Tuubaa kon li ñu ko dénk Baye Fall yi du lu yees te it gannaaw avant ñu koy dénk Baye Fall yi njëkk nañ ko dénk police ak gendarmerie bañ defoon fa ay opération yu am solo waaye di loo xam ne lu éphémère la du loo xam ne mën naa inscrire dans la dans la durée te itam gendarme ak policier dañ leen di jàngal euh, euh, bokkut ci euh, li nga xam ne moom moom la sëriñ bi tere ci dëkk bi te constitution dëkk bi ak waay dëkk yi terewuñ ko fenn ndax terewuñ fenn ci dëkk feneen ci Sénégal kuy jaay sa bopp terewuñu ku ubbi baar di jaay sàngara terewuñ leneen terewuñ leneen kon gendarme wala policier moom bu la jàppee nga xam ne dafa tënku ci loi bu gisee loo xam ne xëy na tere ba bokku ci loi ba li mu jàng du ko mën a appliquer ndax du am benn test bu ko mën a appliquer waaye nag Euh, xëy na boo seetloo sax jamono sëñ Abdou Lahad ku ñu waxaan jàpp dañ lay tëj ñu waxaan jàpp ci sàngara dañ lay tëj kon ñu waxaan jàpp ci leneen dañ lay tëj bu dee cigarette dañ lay alamaan duma la parce que ñu ngi ko doon dugal ci euh, article bi nga xam ne mi ngi aju si profanation des lieux saints kon loolu ba tey c'est valable mais nag dafa mel ne bi ñu ko denkee nitu ngànnaay yi ñoom loolu gënu leen a ñor ci seen ci seen liggéey moo tax sëñ bi denk ko bàyyi faal yi muy ñoo xam ni moom ngërëm moom dong la ñu sàkku lam leen wax daal jéemuñoo xool ndax lii la war wala naal demee wax na leen ko rek dooñ ko jëfe te defe naa ni nag Tuubaa képp ku bëgg lu baax wala nga bëgg lu jub wala nga bañ a bokk ca ñay jëfe la nga xam ne moom la sëñ ba bañ te mënoo ko ba te mënoo ko nëbbu ba kenn du ko gis yaakaar naa ñu mel noonu dong ñoom ñooy wëlbatiku nag leen contesté eh, ak leen xeex te boo gisee jamono yi action yi am ci lu bare bari li ko waral mooy ñu bari dañu bëgg a def boucan créer ay tension ay ay émeute maanaam lu nañu def ko ba nit di jaxasoo pour ñu euh, sëriñ bi nangu liggéey bi wala mu retirer ko ci loxob Baay Faal yi bu boobaa nag ñi fi jaar yëpp euh, mënut a sotti bu mujjee ci loxoy Baay Faal Baay Faal yi sottiwut moom mooy kon Tuubaa li muy mujjee mooy doonu atti tooñ rek maanaam li fi sëñ bi bañ moom ku ne nga def ko fi ko mën a tere waaw nag sëñ bi xam na ko moo tax euh, déggu leen kàddoom waaw kon képp koo xam ne da yaakaar ni da mën a sukkandiku ci loolu pour mission bi nga xam ne moom la sëñ bi euh, dénk bàyyi faal yi capoté mooy bay boo nga sawite te ndax li bëgg doo ko am euh, am nag benn boo xam ne dama xaw a naqari loolu ndax dama gis koo xam ne xam na naa ne dafa bokk ci sët yi waa kër sëñ daan Sougou mu def vidéo wax ni Baye Fall bu fi dugat dañ la rey ay menaces yoo xam ne menace yu grave la grave grave grave extrêmement grave di un défi boo xam ni euh, relever ko sax jafewut waaye damaa jàpp ni ah koo xam ni liggéey Sëriñ Tuubaa tax jóg te lañ ko sant ma di ko def buñ ko santoon sa way juur war nga ko santoon say say kilifa noonu lañ koy appliquer yaakaar naa ne bu fekkee ñooñu dañoo jóg di appliquer loolu bu ca amee loola naqari war na am beneen doxalin beneen wala yeneen tànk yoo def lu dul def déclaration di def nit ñi ay menace de mort te ku ne xam ne menace de mort moom lan la impliqué si le plan légal waaw waaye loolu amul solo li ma ci ëppal solo mooy waa Kastiñ Jéeri Wadaan ñoom dañoo am colère ci Cheikh kóllëre goo xam ne mën naa ni ci sama baay sëñ Aliou Fall la soqi ko donc loola du ma ci sax appesantiru euh, waaye damay wax ni rek kóllëre gu yàgg la boo xam ne ñoom ñii fi ne di njabootu Serigne Jéeri Wadaan ñu ko sàmm lañ ñu ko doxal lañ ndax man ñu bari ci ñoom euh, yàlla dogul woon sax ñu xamante waaye ñoo jekki-jekki fexe ba am sama numéro woo ma di wax seen mbégte ci man di wax seen euh, cofeel ci man ngir euh, lii may def tax ñu jàpp ni ci liggéeyu sëriñ Touba la te di liggéey bu am solo tax ñu am ñu gën a am cofeel ci man ba gën a bëgg a feddali kóllëre gi nga xam ni seen maam seqoon na ko Cheikh la te jaarale ko sama jëmm tax na bi nga xamante ni Serigne bi joxe na ñu nekk ci tàmbali ko kër gu ne dem nañ fa. waaw bu ñu dem ñu néew lañ demut tey ñu demut it bind nañ leen xam naa agenda ñoom wala dara moo ko fànq waaye mboolem ku ñu saqal seen tuwaay rek dem nañ fa waxtaan yow ci mbir mi xamal la ne ñoo ko bokk ñoo ko ànd. délégué sax ca quartier ba nga ne bëgg ñoo xam ni sax eh, ñoom ñoo na fay nekkal nga xam comme li xew nii foofu njabootu suñu waa diir wala ngi nekk tey ñun waruñ foona sax a dem ñoom ñoo na ko waroon a njëkk ñoo fa ñoo fa waroon njëkk a taxawal bu ñu fa taxawee nag mu tëleen bu boobaa sax ñu doon noo woo ndax ñoo war a bokk yéene te it ñoo bokk yéene ci liggéeyal Serigne Touba ah, te bi ñu ko daan tàmbali ni ma ko waxee sànq woo naa Serigne Ahmed Sougou di nit ku baax baax koo xam wayef gi foo ko takk na ko ne ko kat dañoo bëggoon xam gisoon kan mo wala nekk porte parole wala représenté xalifa bi ñu ñëw ko waxtaan ak moom ci liggéey bi nga xam ne moom noonu Serigne bi sant xamal ne leen ne ñoo ko bokk bëgg it ñu ànd ko yoo ma ko waxee sëñ Ahmed Sougou moomu daf ma wax ni ma déedéet ndax sëriñ bi dafa xaw a euh, sori wala dafa xaw a tabje wala dafa jagadi lu lenn ci lu mel noonu dogal na ko ngan waaye man bu ma ñëwee dana mel ni ñëw na ma ne ko déet kon sëriñ bi te ngaa bàyyi kon yow nga wax ne fuñ ne fi nga nekk ñu ñëw fa mu ne déedéet may ñëwal sax bopp keroog kër sëriñ Assane Fall mu sëriñ Modou Moustapha Fall ci Mbàkke la nu fekk ñu waxtaan fa lu yàgg mu jógee fa waxtu wu ne damay woo doon naa ko jéem woo léegi nii sax jotuma ko ndax xëy na dafa day faral di tukki moom it waaye mbir yi daal noonu la demee diggante ñaari kër yooyu daal walla it nag diggante genn yenn kër yoo xam ne dañoo seq euh, Serigne ah, ñoo xam ne ñoom ñoo xam ne benn teen bi la ñuy euh, lu fa war a am moom ci luy indi lënt wala ak euh, réero moom amut rawante nag muy doon loo xam ne dafa jóge ci Euh, jëfee ndigalul sëriñ bi waaw lépp daal lu ñu war a mën a waxtaanee la moo tax daal euh, ma def vidéo bii pour xamal dalal xel yëpp xamal ñëpp ni daal lii seytaane la su fëgg ci bunt bi rek waaw ndax lu baax moom waxtu boo jógee euh, di ko def seytaane day jóg moom itam jël ay pexe yu ëpp doole ya nga yor yow ngir jéem a fonk loola kon lii lépp lool loolu nga ko waral waaw na ñëpp delloo si xel yi rek te xam ne danañ waxtaan incha allahu taala nga xam ne ñoo bokk lu ñu bëgg waaw ah, ñëpp foofee day ñëw goo fee ñooñee ñëw xam ne waa Kazu Rajab yi waa daana nekk ñu xeeb leen wala ñu yab leen taxul ñëw li ñu jëfee ndigalul sëñ bi fu mu leen yóbbu ñu dem fa rek moo tax ah, jombul nag euh, ay mbooloo moom bu ñu àndee du ci ñàkk xëy na ñoo xam ne doxale nañ doxalin woo xam ne waree su ko doxale wala njuumte am ca wala leneen am ca waaye loolu lépp nag itam dañ koy euh, comprendre rek te te waxtaane ko waaw message boobu daal moom laa bëggoon euh, yónnee eh, daal ngir ñoo xam ne mbir yi moom nii rek la demee du ab guerre suñ diggante kan yabuñu kan bañuñu kan ñëpp sëñ Tuubaa lañ leen di xoole ndigal li mu sëñ bi joxit jàpp nañ ni kenn koo xam ni eh, sëriñ Tuubaa ñor na la bu la digalee nga def bu la teree nga ba eh, yaakaar naa ne kooku itam ndigal lii ànd nga ci am na sama kilifa gu ko wax léegi nii ci benn audio sëriñ Mahamadan sëriñ euh, Abo Madiana Mbacke wax ni bàyyi faal yi kat ndigal yi ñu leen di digal muy neex nit ñi buñ bale leen ñu bale bu leen bay leen ñu bay bu leen root lu ñu leen def loo ñu def ko buñ leen def leen leneen it kon bu leen bu neexul nit ñaar dañoo war a xam ni te ndigal nañuy jëfe ndigal leneen neex rek nañuy jëfe leneen neexul waaw kon daal loolu laa ci amoon may wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu